Eh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, jërëjëf beneen yoon eh, Seydi Jamil Ndour rajo Mbour FM ci liggéey bu am solo bi nga may laaj yan seede lañu mën a def ci jëmm ju tedd ju màgg boroom xam-xam bu màgg mag bu rëy rëy rëy bi Sénégal ñàkk adduna bi ñàkk ko muy imaam ba dara Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna ya gën a gën a gën gën a gën a kowe àndale ko ak yonentu ya ak uh, mbooleem nit ñu baax ñu nekkoon ci yoonu baax uh, wi nga xam ne ci la nekkoon ci lañu ko xamee euh, di ko jaalal jullit ñi ñëpp di ko jaalal waa Sénégal yëpp di ko jaalal ay xaritam ak ay famim ci seede yi nag dama bëggoon a dépare rek ci boo xam ne Ansoumana euh, Mané mooy waa jooju jiite ñi seen xel yi neexul ci Sénégal su ma juumee ci tur bi itam xëy na jaaxle bi ak bettaayu kàddu gi moo ma ko yóbbee euh, dama ko mës a dégg muy wax ci benn euh, rajo mu ne Kaolack daal ba Kaolack daj euh, benn jëmm lañu fi xamoon mu daan taxaw di toppatoo ñi nga xam ne dañu am feebaru xel di leen jox ñu lekk di leen faj bu ñu feebaree di toppate seen mbir di leen bàyyi xel mu ne jëmm jooju mooy ki ñu ñàkk tey mooy ku fi jóge ko tey mooy imaam ba dara Ndaw yaakaar naa ne kuy bàyyi xel ñi nga xam ne dañu am feebaru xel du caagee ne dañu nekk sa mbokku deret waaye xam ne képp ku jar a xettali dañ ko war a xettali ci dëkk bi loola day na tegtal ci wane ki ñu ñàkk ñàkk gi naka la xóotee ki ñu ñàkk kan la waaye danga doon yaakaar ne xëy na kon kuy taxawu xanaa ñu nu mel bàyyiwul kenn ci yërmande ja ci yéene nit ña jàmm ci yéene leen mucc ba ci ñi manqué ci wàllu xel waaye nag noonu la mën a demee euh, koo xam ne li nga mokkalal tey nit ci alquran ay téeméeri téeméeri nit la wala nga ne ay junni junni junni nit la ñi nga jàngal ba ñu man arab dégg sharia kenn xamul naka lañu naka lañu tollu ci bari waay dégg naa rakkam imaam Abdoulaye Ndaw ñu ngi ko koy jaaleel di ko jaaleel famille bi yépp mu ne limu mu ci ñoo xam ne bis ni ki tey nekk nañ ay imaam di jiite di jàngale di leereel diine fu nekk ci adduna bi mat na ñetti téeméeri nit kon bu dee nag ah, ay jàngaleem ak ay yeeteem yaakaar naa ne euh, senegale yi euh, ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi koy déglu ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi koy jëriñoo kon tolluwaayam lu tax ma tàmbali nettali bi ñu xam ne yemu doon ci tolluwaayu jàngalekat rek waaye xolu yërmande ba àggoon na ci fii nga xam ne moom la ki moom lañ ko seedeel ah waaye nag mën nañu jàpp ne noonu rek la mën a demee ndax ku bokk ci famille diine papaam nekkoon sëriñ daara bu mag a mag a mag a mag a eh, moo taxoon ci li ko Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leeram fonkee woon la bokk doon wax ci moom lu baree baree bari doon yëkkati ay kàddum yuy gën a xamal sénégalais yi kan mooy imaam Alioune Badara ndaw di ko tuddee doomu kàbbu ndaw ja doomu kàbbu ndaw kon noonu la euh, sosoo euh, mokkal alquran ci barab yu ñuy jànge ci Sénégal yëpp mu dem fa kokki dem na fa moo tax at bu nekk ndeysaan ci dajee kokki bi ci ñi ko daan gën a taaral lay bokk noonu la jaare Jurbel ci daaray sëñ Mor Mbay Siise jaare ko jaamal dëkku jaamal nga xam ne man sama yaay fala eh, yaroo ma am fa ay nijaay ak ñu may jox sagari njaam yu bare bari dëkk fa foofule jaar na fa ja ak yeneen i barab lu mel ni kal Bakari ba nga xam ne sama xarit imaam Malik si eh, Malik eh, Siise fa la fa la fa la dëkk kon imaam Alioune Badara ndaw noonu la mën a mel séq ak kilifaay diine yépp séq ak mboolooy lislaam yi mu nekk nit ku amoon xalaat yu rëy rëy rëy yoo xam ne lu mu jàpp ne luy gën a rafetal mbiru jullit ñi la ci daan génne waaye itam jàngam ah, yemul ci biir Sénégal ci ay daaraam Euh, jàngale mi itam làmboona mboolem lu ñuy jàngale ci daara yi ci alquran waaye ci fiq la ko daree laxdar yu ba alxalil daf koy jàngale ci naxwu la ko jale téere ajuróom ya bi ñuy tàmbalee jàng naxu ba ibnu malik daf ko daan jàngale ci fiq lekko dale ci ci e, e, e, maqsuratum nu durayd ñu koy faral di tàmbale daf ko daan jàngale ba téere shuaraa aljahiliya waaye ay ndongam moom ci boppam sax moo leen daan jàngalal boppam français loolu moo tax mu dégg français am ubbeeku ki nga xam ne am na ko si adduna bi waaye itam noonu la jànge muritani benn institut boo xam ne man mi jaar naa fa moom moo ma jiitu ñu koy tuddee maadul ulum al quraniya maanaam bi nga xam ne ci lañuy jànge jàngee xam-xam lu jëm ci alquran doon nañ fa jàng alqiraatu sabaa ci matnul imaamu Shaatibi muy juróom-ñaari xeeti jàngi alquran yi wér ñu solloo ko mu jóge ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na fii ñu jàng alxuraan te xamuñ na sax loolu am na waxuma la ak ñi koy man waxuma la ñi koy jàng moom ca ña jàng loolu ci téere yi gën a siiw yiy jàngale loola muy matnu bi ci la bokk jàng fa itam naka la ñu bindee alxuraan naka lañu ñu xamee runga ya naka la ñu xamee té barab yu niroo ya téere bi nga xam ne moom lañ defoon programme ci institut boobu benn mauritanien moo ko bind ñu koy wax rasmu taalib abdallah ak yeneen i matière yu lay wan ubbeekum ci adduna bi par exemple amoon nañ matière boo xam ne mën nañ koy tuddee la présence du monde musulman xaadirul aalamil islami nga xam ne réew bu nekk dañuy jàng géographie jàng euh, nit ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee jullit ña seen nombre euh, ñaata la toll noonu lañ koy toppee ak yeneen i discipline yu bare bari yoo xam ne programme la woon ci maadul ulum alqurani bu rabitatul aalami al islaami imaam Alioune Badara ndaw jaar fa ma itam yàlla dimbale na ma ma bokk ci ñi nga xam ne jaar nañ ci institut boobu imaam Alioune Badara Ndao bi mu ñëwee moom gëm jàng ak jàngale ak liggéey ak bay dundee ak jàppalante nit ñi ci seen wàllu diine xam naa ne nit ku ko xamut dey man nga yaakaar ci moom lu la neex waaye ku ko xam xam ne yërëm nit ak yéene ko jàmm ak yéene ko mucc ba sax ki nga xam ne mën naa am sax eh, jàppee na ko ne neen moom bët bi la lay xool xam nga yërmande jooju nag dara gënu koy firndeel li nga xam ne moom laa moom laa tàmbale woon waaw kon nekku doon rek simple jàngalekat buy jàngale rek leneen li nga xam ne mën nañ koy yokk ci ay jagleem te mu royee ko ci suñu sëriñ ba ahmad saxiir loo daaraam ku ñëw jàng ku ñëw jàng ngay boroom alal sa papa di borom alal wala mu nekk ku amul dara demoon na sax ba système daaraay internat yi moom nekk doon gis-gisam ndax royee ko suñu sëriñ ahmad saxiir loo ndax bu fekkee ne ñi am rek ñoom lañuy jàngal ah kon ñi nga xam ne seen wéyjur yi seen loxo jotul seen digg gannaaw naka lañ leen daan jàngale moom système boobu ci benn benn ñi ko dese ci jàngalekati alxuraan yi di ci dox ci la bokk ndax jiitalul adduna jiitalul bëgg-bëgg adduna soo demee fu mu dëkk dem ci barabam xam ne kii moom wax dëgg yàlla bu nuy wax nit koo xam ne yàlla rek lay wut summeeku na ci lépp lu dul yàlla di wuti yàlla kese ci jàngale alxuraan noonu lay nekkee ci takk ay sëyëg ay programme diine yu nekk soo demee këram ci loolu nga koy fekk ci lay yendu ci lay fanaan kon jàmbaar jooju moom lañ ñàkk yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare aljanna yal na ko yàlla teeru malaaka yërmande yal na ko yàlla teeru ci aljanna ya gën a gën a kowe mu ànd ak uh, yonentu ya ànd uh, uh, ñi daanu ci yoonu yàlla ànd ak ñi yàlla euh, gërëm macha allah ndax ci yoon ñooñu la doon jaar li nga xam ne mooy ndonoom euh, di daaraam di liggéeyam yal na ko yàlla wéele gannaawam euh, taxawu njabootam dëgëral leen may leen xolam muñ may ko jullit ñi ñëpp macha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa